boo mënee jël ba kenam na nga ko jël ndax moom bu jël sa bos du ko jël maanaam da koy jël. waaw maa ngi gërëm Demba Ka bu baax a baax. waaw euh, waa euh, KPE maa ngi leen di gërëm baax di leen sant di leen gërëm euh, di gërëm Alioune Sall aussi tamit ah maa ngi koy sant baax di ko gërëm vraiment di gërëm Malick Gakou di suñu mag suñu kilifa ak Néné Tall. waaw yow micro ah, ngi koy gërëm bu baax a baax. waaw man na Babacar Lamine. waaw lamb kenn ñaanu yàlla jël bakkanu kenn. xam naa ne bu dee yi moom xam naa dinañ bëri ginnaaw papaam wax na fi bu ñu bëree cinq minutes te daanuma ñu jël bakkanam moom bu ñu naree jël bakkanam aussi tamit day metti nan leen defal ñaanal leen nañu ñaanalante jàmm ñaanalante loo xamante ne moo am solo moo am njëriñ lii liggéey la liggéey boo xam ne kenn ku nekk da ciy tedd am lu mu jël yóbbu ko ci këram ay bakkan soxlawuñ ko foo la kafree te incha allah bu neexee yàlla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan te sax bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan man nag li ma bëgg man moo ko bëgg a duma ba pare daan da nga koo bëgg a duma daan ko nga duma booy ñëw ba pare daan ko mën nga loolu dama koo bëgg a duma ba pare daan ko est-ce que nga loolu dama koo bëgg a duma daan ko Balla Gaye numéro 2 mën nga loolu dama koo bëgg a duma ba pare daan ko booy ñang ku ñuy a dama koo bëgg a duma Babacar xaa yooyu yaa ngi may déggoo déggoo ma. maa ngi lay dégg tey dama koo bëgg a duma daan ko. wuyul Baye Balla. ah xam nga dama kii xam nga man gëwal la. aywa maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. Lamine boo paree. Lamine boo paree. dafa am engagement boo xam ne daf ko jël ci combat bi ànd ak détermination bu mat sëkk fu ngeen tase moo ngi jéem a heurter sa sa sensibilité lan ngay daloo la sa xelu supporter par rapport ak Boy Niang li nga xamante ne moom lay waxee. minimiser say qualité comme ni ma ko waxee parce que buñ gisee buñ buñ defee jàngat ci ay waxam jàngal boobu lañ mën a loolu lañ mën a gis minimiser say qualité di heurter sa sensibilité maanaam mel ni benn Lamine lay taseel lan ngay dalal sa xelu supporter waaw man li may wax rek xam nga àdduna moom c'est-à-dire gis nga wax sa mbaaxu waaye yàqul dara sa mbaax man dama ko may sens ñaari defet la tegale maa ko may sens amul lépp loo xamante ne rek bu may wax moom bu may wax na ma waxal lu baax ak lu rafet moom dafa ma war a respecté jox ma cër bëri naa fi mbër bu ne mais li ci am solo xam nga mooy lan ku ñu may sa sens da ngay réglé te yem te xam ne dañu laa may sens. palmarès boolewuñu victoire boolewuñu kese boolewuñu xam nga la moo ñu boole bëgg a bëggal amateur moo ñu boole mais du daray laam moo ñu boole. amul lenn. pour mu respecter la lan ngay def pour mu respecter la. non soxla moom mu xam moom bu ma respecté mais bu subaa dama respecté. loolu maa koy liggéey maa koy jëf. Balla Gaye numéro 2 maa ngi lay nuyu Balla Gaye maa ngi nuyu le premier magistrat de la Toute, l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.